sama mbokki taalibe yi bu ma ànd ak jiital sant yàlla sunu borom tabaaraka wa taala ci baatu alhamdulilah ala haal nu ànd julli ci Seydina Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa di yeesalaat sunu taalibe sunu sopp sunu bëgg ci xaadimu rasulillah di siyaar ñëpp ñu teew ci jataay bi ak ñoo xam ni teewuñu fi te di ñu topp mooy ñoo xam ñu ngi ci réew mi ak ñu nekk bitim réew rawati yi nga xam ni seen aas moo leen moo leen tee mën a ñëw nii waaye seen jëfa ngi fi seen tolluwaay ci at moo leen mën a tee ñëw ci màggal gi waaye seen jëfa nga fa ñenn ñi nekk en distance ay réew waaye seen jëfa ngi fi kon siyaar bi ak nuyoo bi may wax maa ngi koy boole ñooñu ñëpp ku sori ku jige ku màggee ak ku ndawe ñëpp maa ngi leen di nuyu leen siyaar ñuy waroon jël kàddu fii Mohamed Diop mi ci la bokk waaye daa génn ndax moo yoroon sonorisation bi ak yeneen kon maa ngi wax ni sëñ Maxtaar daanaka tëjoon nga yëfi ci màggal ji ñu bari jëwri ni bàyyi dem ba maa ko yónni léegi nii sëñ Xaadim ngi toog ku ne ak fi nga féete woon ku nekk nekkon ci bop lu meuna doon nang ko yore won nga xamni ken kenn mënta dem bala ndax li nga yor magal gi da ko soxla ak li keneen yor ak li keneen yor bu ndaje ba lepp nek ben say moy tuddu magal ku meuna doon ci yow seigne maa ngi lay sante di gërëm te di ñaanal yalla tawfiq yaa fi jëkk a jël kàddu wax nga cant gi ba wax na yi nga bëgg ñu dolli ko bu ëllëgee fi nga jaaroon wax ko bi suñu xaalim ñëwee fi la jaarat ci seen reer bu mujj boobu ñoom dégg nañ ko dégg naa ko xam nga dafa am benn jamono nga waxoon ni nañuy wut nag yoo xam ne boo ci lottal mu man danga bëgg ba soxlaa beneen lottal beneen waxoon woo fi daaw defe naa suñ defoon noonu mel na ni kon buñ toggee añ dañ mën a togg reer waaye doo togg añ boole ko reer waaye lépp wàccaay lay doon ëllëg insha allah soxna ay sëtu Njaay ñëw na ci bilaam moo yàkkumba ñoom ci waañu mag yi woon ci suuf dara ba ñëwee dama leen na ngeen dem ci soxna Mariama mii ngeen laaj ko xalaat am na expérience bu doy ci magal ak gam ak mbalen lu mu néew néew vingt ans wala lu ko moko séré magal gi sayu yu boko né fu mu daw dana la ko wax wala soxna sét set bi ñëwee dama ko ni pour nga doxal ko da ngay dem def tarbiya ci soxna Marème mi del tok fi ci wetam buy bind nga diko xol mak mag la ñuy ñaan yalla waaye mag neexul nag dana egg foo xam ni boo ko ñaanalee mu wér it danga ko naan toogal noppul ndaw mooy nekk ci wetam continuer affaire bi waaw ah, sëñ Fall danaan wax ni bu ñu waxee mag du ngoor mu ne dina ngoor waaye duñ ko bëcc bëccee waaw boo ko takkee ba mu noppi moom mag boo ko bëcc bëccee danga ko bàyyi mu dal wax na dëgg koo xam ne boo ko musaawoo aw xel lay jam boo dee ba mënut a yëg fa nga nekk loolu la yàlla dogal maanaam ma comprendre ko dama doon ñaan rek ñu mën a màggali te yàlla def na ko ndax soxna ab sa yi mu àndal li nga wax léegi def na ko audio barki démb yónnee ma ko ci téléphone soxna ab sa njaay mi sant yu bari yu rëy ba boole ci soxna Ndey sama Njaay ak taxawaayam boobu mu def moom mi wax na ma ko ci sama téléphone soxna ab sa njaay jërëjëf nit dafay siap bu gisee lu baax na ko wax comme day saw nangu naa nekk seen baay bu noppee nga gërëm ko loolu dafay rafet mag ñi dañuy wax ni waaw góor du bay du bay tool waaye dina sawarloo borom nag na tax mag di sawara ah? kon loolu am solo la audio boobu yónnee naa ko ni bi nga bi nga bi nga wax ci téléphone am yàlla na defal leen ak wér ñoom yaa ko ànd xam naa dina leen confier benn mission rek après man maa ngi koy xalaat ñii jëwri yi mën nañ ko waaye yéen laa bëgg ngeen fertali ma Pama Ndiaye naa mën leen a dox waaye dañuy wutal ab oto ngeen dem ba ci buur kër wàcc di ko sëñ benn yónni a ngi ci moom avant màggal ci ngeen dem siyaaral ko sëñ benn yoon ba mu gis teen dana yëg ni ñu ngi koy bàyyi xel suba wala ginnaaw suba rek ñu fexe ba ngeen defal def loolu defe naa ñu ci dëkk bi yaakaar naa yàlla ko yàlla yokku so soxna Paye amul morom ñang ndax soxna Xadi ñom ñii ak ñi ngeen ko seqal ñëpp soxna ab saa tout ça biñu féré mo upp li ngeen wax ndax boole wu leen ci sen temps ak seen doole ta looloo gën a seer guddi yo xam du ngeen nelaw bañ ne wala magal kenn nelawul ci yeen maa ngi sama kamera den xol ngeen and ko sen baye Faal yu bax yi ñoom Mour Fall am ñom seigne Fall ñom ñi seigne Dakar ak Abdou Karim ñom ñi ak ñepp gi nek sen bir maa ngi di gis ku nek bëgg def yitté ngir liñ waxon té won fi imam mo waxon li bi dina jé moy ndek lay nacc mën ko dege fexe ngeen ba lolou fagn ngeen ko defe ren sant nan suñu borom te lolou passif rek ko man ndax li ngeen yoron ci ay nak yor ko ci ay xar yor ko ci ginar bu ngeen bu ngeen wul won bu ngeen ko man soxna xar bi da ligey ba feebar dama ko mujj docteur ci guddi ci waye teewul mo xamni maam lay ligeyel lolou moy li fi nek lu waaye def rek sabab nga ko defal te damay wax ne fi mu ne liggéey sëñ Tuubaa gi doxuma ci waaxuma ci dama ma taal fii nii nii ku amatul ëllëg booy def boo moytul da gis dootoo gis sëñ bi damay waaxu damay daw bu wér fi nekk nii moo tax yàlla na yàlla dimbali yaafus ba mu góorgóorlu ndax boo farluwul ñëpp dañ la jiitu nga nga joxoñ leen di leen tuumaal ndax màggalu ren gi ni mu toll ci ci mbooloo toll ko ci matériel toll ko ci ay xaraki naga ki béy loolu taxawal du ko fi indi farlu dëgg moo koy def te mënatoo dellu ginnaaw nag fii ni chaque année dañu war a jëm kanam noonu la war a demee léegi laay wax soxna xëy ni ko tàmbali naa mbaaleem bi woonaa woonaa Pape Faye fii ni ko baas yi nañ ci teel a jëm bi jox naa ko biig ñaari million pour defal ay baas tàmbali naa mbaaleen ci bëgg ba lañu fa egg lañu lañu fa daan def bu matul it lañ ci dool du bari waaw yi soxna Faye wutoon mu nekk douze mètres sur huit maa ngi ci liggéey ñett fi mu ne nii jullikaay boobee ca Touba huit sur huit la xaw ma wut baas bu mag bu ko mat yooyu eh, fay naa ko démb ndax dañ ko daan luyee te bëggatuma ñu luyee ko waaw bi naa ko ne li ma dese man naa ko daje nga dem defaree ko loolu gars buñ jegee foo mën a dab ñu ànd dem maa ngi wax seen Mohamed ci bëccëg eh, sëñ Blaat moo moo waxoon nii murit balaa man boppam bu soxlaa na jaar filim moom te lu ñu am am materiel ren luy ji nañu yañ doon duy ji moom naa ñëwee mu naan nañ ko laat saafara donte mbuubum liir lañu am nag at mu jot nga yokk xam nga kër ga lu yaatu woon la bâtiment yi ci kaw ak suuf waaye ren jii ku xam ne ne xat na ah maa ngi ciy liggéey ci bâtiment sëñ Xaadim nu ko yàlla yokke ñu ngi ciy ñu ngi def nu ko yàlla yokke ndax dem nañ ba fii ne foo foo foo teg nit mënatoo ko mu amoo ko foo daanal gan da ngay mujj di boole paquetage ko boobu gaa yi di wax waaye loolu ñaan gu nangu la maa waxoon ni ab dund ak njaboot du ma ko doyal waaye noonu la mujj tëddee yàlla ko yàlla yokk te yokk na ñun bañ defaral defaral sëñ Tuubaa ay sato damay xool sëñ Basiir Abdou Xaadir yàlla ko yàlla may kattan ci cérémonie bi mooy wax benn tante bu jënde end tante bi yeex a ñëw ba ni suba la màggal ci lañ defee seen cérémonie ren mu ne ñu ngi jéggulu ndax tàngoor wii ci ne liggéey bi eggut bi ko cameraman bi génnee te sama xel nekk mooy man naa gaaw ma ne wuti ay tante ma nit man fu ma gisul baax daay roy borom moom moom cérémonie tuba lay wax man maa ngi wax suñu cérémonie ñun tam nan gaaw yok motax dama ñew rek ni pap nawti ay tànk comme fini man nañ ma gëna a gëd ngàdd tànk waaye lu sama tank sew-sew fu mu teggee ma tek ko fa rek te kuy def kula raw nga xol ko parce que yene dab so day ba ca nam bo debul ko raw ñu bari te ni ngeen organiser max sëñ khadim mi tan lañ bokk mbacke mbacke ba xewlu du dimanche xaw bu fa ñëwoon ci télé bi rek lañ gis Fala añee dimanche nee na dama leen a gis fii noonu naa ñëw seet si leen ñoom soo ñi nga àndal du ay nit mbàkk lañ sant waaye lii mënuñu ko dañuy fekk na boo ñu ñu màggal ba débarrassé suñuy yëf mooy image su télé bi rek kon naa leen kon bu ci yemoon leneen lay doon ñoo añandoo maa ngi suñu xaar yi muy wax loolu mu mu yéem lool sëñ Jaase mi wax na ci yu mel noonu ndax ci biir Tuubaa la rek waxuma la organisme yi maanaam ci wàllu ñam yeeg décoration yi ngeen def xeet yu ni mel waaye àndandoo ñëpp su jootal yàlla rek loolu dafa neex suñu borom ñëpp war a nelaw ñëpp jóg ni yàlla yaa tax ñu jóg te suñ borom nag bu saa yi ma nunguloo kenn ci mbooloo nungul ñëpp suñ borom def def ségrégation fekk mbooloo mu yow képp. kon du mat yàlla dana naa yow waaye ne boole naa ci ñëpp lay wax te njaase kër ga ay centaine de personnes yoo fa ne su la fa fajar fekkoon dana xam fu lu jumaa yi Tuubaa diggandoo tegu ci yoon àndandoo góor ak jigéen mag ndaw loola nag loola nag passif la màggal gi du rek xéwlu kese kese yi ma waxoon jaamu yàlla gi ak tudd yàlla gi mooy accompagner xéewal yi parce que xéewal yi ngay lekk boo demoon ci resto yi ngay jaay na ko waaye ci restaurant yi léegi nga jënd fi sa benn sandis kon balaa muy mel ni mu war a mel nga yëg ni yàlla mi la ko jox na nga ko war a delloo njukkal jaamu ko ba noppi boo naanee lu tàng mu neex boo naanee lu sedd mu neex te loolu ngeen def sonni ci dañ daan sonnee ndax daaw xuloo naa ci nañ ko def waaye ren ji boo gisee ñëpp a ngi ci imaam mi laa wax ni ko taxawal ci bunt bi soññee ta sante yàlla na ñëpp xam ne yàllaa leen moom na ko ñëpp xam te yëg ko ñëpp yëg ne sëñ tuwaay suñu jawriñ te li mu daj ba pencam mais mel ne gimaa yam bi rëy te fekkewu ko ku ko xam ku ne doo sàggane jaamu sa borom surtout nag yéen waa nasrullah yéen moom seen kilifa nee na ku jaamu seen borom na ngeen ko def ku ko deful na ngeen ko def loolu waa ji wax dugg saxaar yenu sa bagage day tax sa bu mucc rek duggal boo noppee yenul bul yem ci yenu ca nag boole ca ah, day tax sa bagage egg fi nga jëm rek te waxoon naa leen fii nii taalibe bi ma gën a aay ci moom mooy ma fekk ci yoon wi maanaam nga xam ni sariyam sariyam ak xaqi xam da koo boole ma fekk sam puus la day yomb boo ko sàgganee dañu am yittey defar la ba nga ba nga fonk ko ba noppi doo ko ñëw ci sa jëm ba noppi doo laa teg ci yoon loolu day yeex waaye dimbaleel sëñ bi rek yow fonkal faratay sa borom te ñu tudd yàlla nga xool loolu lépp pili rapide la xaw ma nañ koy defee léegi nga mel ni nga bëgg ci kàttanu yàlla incha allah kon Baye Mor jërë ngeen jëf damaa waxoon fii ni daayira kenn nit ak soxnaam ak doom man nañ ko mbooloo mbooloo d'accord nombre la waaye yenn saa yi mu tardeel nit parce que bu ñëpp bokkul lu ñuy yëgandoo lu ñuy defandoo tardement mën naa am mooy li nga wax léegi borom pasteur la ñuy xaar waaye na ko ne tàmbalee yow sa yow sa bopp yow bàyyi ma ak sa soxna yow ak sa doom boo ko defee xalifa def ko doo manqué équipe wansir xasrataka al axrabin dama yor jéegub diir yanke bu mag wàcc ko fee muy nelaw ma ñëw naa ubay ki am déet yow kay naa la neel fee ji taxaw rek sa soxna taxaw boo jëlee palaat moo daal palaat ku lay dimbali dimbali la yëf yee yaatoo noo xam ne fii ne ku ne day jàpp fi barab tàmbuleen équipe bi ci yow ni nga farloo ba ne jot bi jënd say fur yaa xalifu bu ngeen nee neen madame ayoo ñu seet luñ la ci taf tafal bu boobaa doo manqué équipe dégg nga ndigal li ndigal li wuyu ma sa carnet bi bind ci soxna si bind nga ko waxal waaw ok naka dafa bind soxnaam du fopp ñeneen ñun ci boolewaat bu ko defee yëfi yëfi day dox hmm? loolu mooy li fi sëñ Matar ba muy màggali ab otoom la yor sëf ñëpp di ko këpp Touba nga xam ni moom dara du dox defal ni moom rek na ko lay jël sa waa kër rek dugal ci nga dinañ la ci jàppale sa bopp ak sa soxna borom mburu mi sëñ Mourtada Gueye jërëjëf mburu moom manqué daa ëpp na ko waxoon defe nga ko noonu bi nga xamee ni yàllaa moom i jaamam. yow nga dem jàngkat xam ku fob biir sol ca dara la muy jariñ sëñ Murtala Mbàkke daa waxoon ne lu ne baaxee na fu ne waaye Tuubaa la gën a sëñ Murtala def lu baax foo ko defee baax na waaye Tuubaa la gën a sakkane bu gën a sakkane Tuubaa it bi ñu gën a sakkane waat ci màggalu sëñ Tuubaa gari sëñ fay ñëw amoo ci xaaj ak seen taal sa oto di ko utali sa bopp ak sa sa alali bopp waaye jigéen diwu la nag waaw jigéen ko di ba mu koy tàmbali mënu ko waaye tey jii man ma nga bëgg wu tollu toolub sax tax mom sa kala nga ci bir de. asan ah, mënu ko mburu waa mu goog doon na tarbiya bu wax ci mburu bi alhamdullilah rabbil alamin jere <laughs> jërëjëf waaw wa ñom ñom imam gi bokut ak pass passu talibi gi waxna lay ko fi màggalu maan day jot nga jiite ci jàkka ji ba noppi ne salaamaaleykum laxas sa ndig di sarwi nit ñi ay ñuy lekk lii loolu lañ fi nekk lu ne dafa am temps damaa waxoon ne jaamu yàlla yi gi ci gën mooy gi waxtoom ka bu jaamu yàlla ci allah akbar jotee def ko soo ci noppee la ca tap def ko aa xam ne waxtu liggéey wuti boo dee wér da ngay tardé nii danga war a xam waxtu wér ak waxtu liggéey hmm? kaabak màkka gee ak na mu réyee am na heure boo xam boo fa demee ay xil ay xil dafa yàlla santaane wax fay ràkk waaw dem ba ca Kaaba ñun la dawal daw daw juróom-ñaari yoon boo fa nekkoon Allahu akbar daw amoo dara daw lañu la sant nga dem Jamra ñu ni waxu sa taalibe sàngam moo def nangam sa taalibe sàngam moo def nangam moom rek ku doon ak da ngay mujj soof nga rek na nga fexe ba moytu ndax señ mo gim tok la tok waye buñ démé ba ko ne de ko kalamé rek légui légui musiba am kon na na na ma ñëpp dimbali ci lolu ci seen bop lima ma touba ni ma ngi ñaan yalla doli ma dimbali ba duma len trahir ci seen jëm ci seen alal ci seen lepp talib bu nek na ma dimbali ba bul ma trahir man tamit parce que talib bu ne matérielu sëriñam la waaye sëriñ bu ne alali taalibeem la nan fexe ba ñun ànd bi ñu yàlla boole bu benn waaye jóge ci àll bi ñëw yàqu te mooy ñëw ni ma sa taalibe bi nangam du ma ma fexe ba bëgg naan ndox mu seet nopp keneen ñëw ni ma sa sa taalibe bi nangam sa njaase ma lijjanti la ba jàpp daa war a tëdd keneen ñëw sa taalibe bi nangam ah bu dee sëñ xaalis moom mi ne léegi mu fas kanam waaw day day kenn du xam ne muy nuróon bépp taalibi bu koy tegub sëriñ yow yaa ngi yàq sa yaa ngi yàq sa àllaaxira yàlla sax am na sawara bi te bu rek baax yàlla kopp nit ñi waaye suñu borom day muñ di muñ di muñ ba yàgg mu ne xaaral rëdd kër gu ngam dëgg tudd sawara ne am na ñoo xam ne moom fokk rek mu mos ci tuuti ndax dañ ma sonal te yàlla yàllaa fi gën a baax de ak am yermande kataballahu rabbukum ala nafsi rahma waxul lol waye amna sawara yalla Boy khafiri san bi mooy xaabili taw bi ah ci fek wasadilin wasadif waye amna sadif na bakar xiqaab lay balé xana ko ñep kon ñëpp mucc tuub lay nung xana ñep mucc non waye na duma nak parce que ci lolu amin na taalibe yi dimbali sëriñ bi ci réclamation yu bari yooyu plainte yi sëñ bi dimbali leen yéen it sagal leen ci seen digganteeg moom ba mu xam ne seen kilifa mat na kilifa nii suñ ko defee dañuy gaaw a egg dafa am jenn doomi sëñ Tuubaa mën naa ko sëñ sooy bu Mbàkke mu baax ni borom daara ci defe naa bu dul ci sëñ Moustapha Buxaari wala ci sëñ Bass am na daal comme noonu ma wax mu waxtaan bi bis daaraam jooju sëñ bi daal bañ yëngu yu yu kii am fa ay xeex ak i xuloo xam naa bis daa àtte ba sonn ñëw ñu ko di di xeex mun nan xeex mun ma nan ko def <laughs> moo moo fi gën a bañ waaye bu daa sonn nag mu ne nag léegi nan bàyyi nag yëf noonu waaye mën na ko def waaw mbir bu dee ba xeex di ko sottal nañ xeex kon am na yoo xam ne day tax a dàcc nañ ci yàlla musal kon nañ nañ jub man ak yeen nañ jubal man ak yeen té nañ jubanti man ak yéen lajees bu ñëwé ñu xamni li dogal yalla ah waye dogal go xamni ku ñu fekk tank bani fa wat wattaara loolu du dogal yalla dal ci fitna ak fitna dal ci sa du ben nit ku jub tabax ba ba nattu yalla dal ko xamees na ko waaye fekk fam nek nga grabu bu ak sa mbaxana dugg ca biiram tëdd loolu amuloo wax loolu ndax yaa fekk fitna fa mu nekk fitna dañ koy moytu waaw sëñ Tuubaa moo ni àjjanu ju àndut ak jaamu yàlla amul fii mucc gont ak bàyyi tooñ amu fi teraanga ju àndut ak nungu liggéey sëñ Tuubaa na ñett yi ku ko xam feneen demal borom Tuubaa nee na Tuubaa gii teraanga ji fi ne nangoo liggéey ko fi indi mucc gi fi ne bàyyi tooye ko fi indi aajara ji fi nekk jaamu yàlla ko fi indi ku xam nag feneen fu mu am fu dul demal Tuubaa li habdin gis nga ko habdin ab jaam ba noppi nekk murit ba noppi nekk saadix ba noppi nekk xidmat xidmatin nee na ñooñu doo ko def aw xubbin ñee ñëpp Tuubaa la xub àjjana yi diñ jëm ku nanguwut liggéey nanguwoo jaamu yàlla nanguwoo bàyyi tooñ ba nag bëgg àjjana yow koy nax rajaa u jannatin bila taati bi sunnatil maai xuróorun yaati xaani ba ko binde yaakaar àjjana te nanguwoo jaamu sa borom sëñ Tuubaa nag booy seet dof seetal waa jooju ku waroo ku noonu nit booy yaakaar ci yàlla dëgg la yàlla yërmaane day tàmbali nit ñi àjjana waaye ci sababu jëf ji nag da ngay jëf lu tuuti mu mott li la waaye lànkal yàlla lépp ba noppi di xaar àjjana da ngay nax sa bopp di tooñ nit ñi gis nga gis nga gis nga damay wax ni astafurlah du dindi bàkkaar ah du dindi àq bàkkaar lay fekk yow nga yenoo àq ni ñee yenoo àq nii yenoo àq nii ba egg ci kanam yàlla suñu borom daa ah, man de li ma mën am man naa la koo jox waaye li nga séq gaa yi ne lijjanti boo xam ne ëllëg ku nekk soxla ku nekk nga soxla la nga amoon yow man xaymat akbar ku dul soxla sa jëf amut te ku ku la yore àq doom nga seet lu jar a bàyyi xel kon lijjanti suñu bopp bala nekk ko kër yàlla bu doon noog yàlla problème du am de yàlla ñun pour mu yóbbu ñu sawara lu koy jariñ pour mu yóbbu ñu àjjana lu mu koy wàññi wa innahum wa in asawka laa yaahat li xaflatin waaye la misul ko bi ka xat suñ tuwaa wax dëgg wala hum habbi lasi laa yanfahu li nga xam ne du la jariñ dara muy àjjana may ko gaa yi waaye li nga xam ne du la wàññi dara muy sawara bu leen fa dugal suñ borom ni yàlla suñ tuwaa d'accord na mais ñoom seen biir nañ régler seen problème te ñëw bu dee man rek gratuitement laa leen ko defal bu doon ñoo yàlla képp kenn du kenn laa la wax waaye ñun ñooy coppet ci bii yi bi ba egg buntu kër yàlla suñu borom ne xaar leen lijjanti leen seen bopp te ñu te foofa bala la fekk kenn wax baal naa la da ko wóor di jekkal waaw waaj day dugg këram ba noppi loose di cëb lalam wat looy di ko ëpp mu wóor ko nii di ko àjjana boo ko nee Ahmed Diop mu ne ah jërëtul la topp de parce pare na waaye balaa ngay dugg koo yoreel di ko lijjanti ku la yore di nga ko lijjanti gaa daan waxtaan ci benn benn yonent ab riwaay bu gaa faral di nekk de dara ba taalibeem ba faatoo ca geer ba ndax sabab bu tax muy muy naan xóoriyaa tàbbi ajjana yonent bi yàlla may na ko kasfu mu dem di ko seeti fekk saraay ñu def ko ci njaawaani wurus di ko di ko ëpp salaamaaleykum mu ne ko maa ngi kii de xóor yaa mu ne ko waaw mu jóge rek màggal ko salaamaaleykum yaa rasulillah yaa jara topp topp gi ma doon topp ci àdduna moo ma jox teraanga ji te saaba bi ci xare lañ ko rey mu nekk saxiit ba mu ko defee ba sant ba noppi bëgg a dem suñu borom ni ko li taxoon ma may la kas fu pour nga ñëw fii dama bëgg nga wax ko li nga ko def te ko àq li ko ni àlaaxira fekk sëñ baa mu dem xare yonent ba ci yenn riwaay yi ndax dafa yoroon soxna te soxna sa taar te geer la ko nu goowoon bis yonent bi doxoon romb ko soxna si fi muy sangoo mu yiw lool xel ba ne ci moom kii ñu ni diw te te te booba boo takkee soxna seet bu bees fekk trois mois waroo dem xar danga dina war bay nga seetu mooy luwaa bi waa jóge geer barki dem mu àndaale ndaw si bi mu ko gisee mu yiw bët set mu yabalaat ko xare <laughs> waa ji bi dem xare bi jàmbaare rey ña fa nekkoon delsi war naa ma trois mois yu mu noppul ñëw ni ko def naa lii dàq naa ñii jàpp naa jaam yi mu ne ko amoo ah, morom mais ger sàngam moom bu fu waa nga xëy fa dem ca xare ba daaneel ñooy des suwaat saa yi ñëwee moom day jëkk laaj ndax diw ñëw na ñu ne waaw nañ ma ko mu ne kon ñu ne gën a la yëg suñu noonee yi mooy côté sàngam boo léegi xëy fa saa dem ñu dañ jam ko mu faatu mu ne kon guerre yi mën ngeen arrêté na noppul moom yàlla yóbbu ko aljana ndax ndigalu yonent la ko defee suñ borom ne ko nag moom de bu ko àjjana waaye àq am na si diggante moom ndax lii demal nga bal ko àq waa jàng àjjana keroog yonent bi ñëwee ba xuus ci biir aljanna fëgg ko mu jóg mu kontaan sant ko félicité ko ci àjjana ju neex jeeg li mu ko doon liggéeyloo moom naa la wàññi ko suñu borom ne ko waxtaanagu leen de danga koy wax li fi tax a ñëw dama lay baal àq mu ne ko amuloo kenn kenn àq daan jàll. loolu bi tàggat tàggat tàggat tàggat mu ne ko waa da ngay teelu maam it da gaaw a daanu sa soxna si diw mu nii mu nga fay rafet rek ci mu ne ko mu nga fa de anamu mu ne ko maa ko yor léegi waaj ne pat. yan di ko loolu tax a mu ne cel tuut tuut ba mu kon waxtan ci mu pat bu waxe ba nat mu ci jëmin ko xaar yow waxal mu ni cel wax wax wax mu ni mu ko wal xana mu ko ba xamone ni lii tax nga defi ñëw ñoo de top na la ko bekk nga mi fekk ci ñu xasse xam bi tax mu ñew fi rek nungu ko koo baal te mi woon pourtant tajana dàq waaw ginaaw ak moy dem ba top nit fofa nek aljana ba noppi am looy topat nit fi ci aduna yalla na ci yàlla musal nañ moytu ak ci suñu biir nañ ko moytu ci ñeneen te man ta ñak way bo juumee nga jégalu yalla xam nga ko ko bañ ban borom ci dañi alal sax boko foré yalla yàlla nattu ko foré xamo fu dëkk xamo do lekk ko denc ko diru 1200 ans di xamoo ko ne su boobaa mën nga koo jaay saraxe ko yéene yool bi borom waaye su fekkoon xam nga seen borom ñu ne ask maanaam lam bii de ñeen ko xamee mooy waa njóobeen dañu ngi dëkk Dakar da nga war a dem fa ñu ne ñii dañu ko xamee woon ah lii de ëpp sa tax deset fi ñëpp faatu nañu saraxe ko yéene leen yool ba nga ko saraxe ba noppi ba génnaat ba dem sa kër benn waaye di pem pem ba ñëw sa kër ni damay mbindaanu yow ban famille nga bokk mu ni famille njóobeen kan mu ni maam diw nangam nga xam ne kii ca ñoom la bokk danga nga ko war a jox alal ci sëtër ñi laa la wax boo fa nekk naa ko saraxeeloon naa ko tuyaabi sa maam maam ji ne man bëgguma tuyaabu xaalis laa bëgg jàll koy xub moom lañuy wax raddul masalim am na téere bu ko sëñ tubaab wax defe naa jawar nafis la xum ah mooy delloo tooñaange kon yëf yi ay sew sew ngi ci biir yéen da ngeen a bëgg yàlla seen borom bëgg ngërëmam bëgg rasulaay bëgg sëñ Tuubaa te man sama contrat ak yéen mooy loolu fi ne ku ko fi amul perte nga àdduna jii nii du affaire bi de contrat bi ngërëmul yàlla rasulaay salaatu salaam sëñ Tuubaa loolu moo ñu liyee maag yéen. ko àdduna yàq pour man bu ko àdduna yàq pour yéen am déet sëñ Jaase waxuma àdduna joo xam ne du suñu suñ biir waaye beneen waaye jóge ci àll ba ñëw andil nu ko yow nga jóge fi dem tooñi kenn koo xam ne sa yoon néew ci moom naa sama sëriñ gërëm na ma lu muy jariñ sëñ Tuubaa wax maam Cerno Ibrahima ni ko Cerno ko muus nga fii nga jëlee la ñëpp jëlee waaye li nga jël da nga ko yóbbu te yàquwut kon am na ñu fi jëlee mais dañoo yàqule man ak yéen nañ bàyyi tooñ du ko laaj de man ak yéen nañ bàyyi tooñ du ko laaj de ak booyal salaam meñ tey ci ci bëccëg imaam mi xutbaam bi lu la neex wax te dara wóoru na ci xam nga boo demee ci buntu mooy mooy mooy ci alxuraan sax laay wax foofu suñ borom ne buñ tuumaalee ab julit ne da koo def yow mi julit lay jëkk war mooy boo ko déggee mooy dindi ko tuuma ba pare na jàpp ni waru moom waru koo def weddil ko ba noppi ndooga ndooga topp nag mbir ba xam dëgg la am du dëgg mais li nga war a jëkk a def rek mooy saa waay de man jàpp naa diw du def loolu ku dëgër bopp ne la maa ko gis te yoon néew ci nga ne ko mani gëwuma la toppal fii mu topp la topp la topp la ba ba la yëf yaa ngi nii xam loo war a def dem ca kooko digal ko mu tuubal yàlla tamaatu ñun xaaruñu lool de lu la wóorul rek ngay wax mu jaral la bàyyi jàkka ni ko waxee te dara wóorul la ci kay kay kay témoin jaral la bàyyi nit ki di ko seereel sax loo xamut lu mu doon yàlla nañ ci yàlla bu am solo la hmm? bari aana ku yuuxu biir sawara te làmmiñ la rubba bakkin fi niiraani law suhila an mujibaati duxuli asara fi lisaani sëñ Tuubaa nee na bari aana ku yuuxu ci biir kàmbi sawara te boo ko laajoon lu lu yóbbu sawara dañaa sama làmmiñ maa wax lu ëpp yàlla na yàlla musal ci wax gis nga làmmiñ fi ko dugal yew ko wutal ko 32 da nit ko sam nga xam bu génnee ñu mat ko defal ci weneen sakket muy ay tuñ ay mir kep ko booy def ci alxaan da ngay dégg ni yalla joxnu ina de dee naaw najj ni walisaanan wa safatay manam maanaam najj ni safatay ak ben lamine manam nit lu ne ñaar la ci am ñaari bët te taxul mu doy ñaari paxi bakken taxul mu doy ñaari nopp ñaari loxo ñaari tànk biir ak ginnaaw lu ne deux deux la waaye ni yóot làmmiñ ni ku yow benn doy na yow kenn du la ñaareel ndax yow benn bi ket ni mu tas àdduna wala saanal ak benn làmmiñ parce que benn làmmiñ li mu yàq bu doon ñaar ma si am ak fan ko dugal ay bu làmmiñ nekkoon ci jë koo xam ne bu génnee tas dëkk bi dañ koy yeew ba pare tëj ko te na ku ne na seetlu salaam añ amul mën a buum bu ndaw bu ne ci biir buum gu rëy lañ ko yeewee Seydina Aboubacar la defe naa ku daan yeew làmmeñ wi di di di di di kii Aboubacar Sadiq la bi ci yonent bi defee waxtaan ndeysaan fee ñetti weer feebar na ko xëm ci làmmeñ ak lu mën a yàq ëllëg ba mu jógee ca feebar ba daa benn benn corde yeew ko ci làmmiñ bi lal bi muy tëdd mu yeew ko ci bëñu lal bi di diiru nag corde bi di dagg làmmiñ bi muy nàcc nasrun min allaahi wa wa basirul muminina